ubbi l'observateur ñëwaan na ak ñun ci lu yaatu ci conférence de presse bi maître Aïssata Tall Sall gonte woon démb doon ci indi ay leeral ak gindi ci li waral libération ci réew mi fan ci réew coobaree bopp baa ñu lal ko ci mbiri politique moom maître Aïssata Tall Sall leeral na fa démb bi ñu bàyyi ñu dellu seeni kër ay liberté provisoire la ñu képp ku ci justice bi soxlawaat dalay woolu lu jëm ci libération bu Ousmane Sonko ak bu Bassirou Diomaye Faye de la justice maître Aïssata Tall Sall nee na lu nekk mën na nekk lépp mi ngi aju ci éléments yi nekk ci dossier bi dossier beneen mu di boobu ngañ dem ba Touré dawoon génn réew mi ndax doon bañ ko ko jàpp te dellu si ci réew mi bu yàggul ministre bi nee na dara yi gàlle ci ndoddam bu ñu ca toll dañu koy jëfe li mu doon def démb mu di ab conférence de presse ak la mu fa wax Sud Quotidien mode éclairage da ko tudd journal bi nee na ñuit ministre bi témoigné nañu Aïssata Tall Sall service après-vente la doon def bés bi le jour bi ni ci xët mu njëkk avocat par wax nañu it ministre bi waxul leer démb ci libération bu Ousmane Sonko ak bu Bassirou Diomaye Faye li mu leeral daal moo di féexal kaso yi ak xeex longue détention yi bokk nañu ci li waral libération yu bari yi ñuy nemmeeku fan yi lu ñeel révocation bu mairie Ndakaaru Barthélémy Dias gi ñuy wax Aïssata Tall Sall nee na ko ci moomi mbir ci li jagum ñoo ngi toll ci 344 détenus ñii xaar ñu càmbar seeni dossier toll nañu ci am na ci ñoom lu mat yoo xam ne dañu leen takkal ay bracelet électronique te lépp luñ ci def ba fii ci yoon ak ci transparence lañu ko teg ñu teg coow loolee ci suuf te wax ci leneen coow lu ñu fi yëkkati te ba léegi daanoogul muy élection présidentielle yi war am ci réew mi kañ lay doon libération mi ngi ñoo xam ba fi nekk nii kenn tanewula ci ci point actu organiser ay élection présidentielle yu jaar ci yoon mu ne li bu Sénégal wax moo di ku jiite réew mi bay dem na bu yees bi ñu fal Souleymane ni fii ak booba bu ay ñu fal kenn nan la ñuy def xanaa duñu bàyyi Macky Sall muy dem ñuy nekk ci réew mu amul président de la République sursoi nañu ginnaaw ministre Mame Mbaye Niang directeur général bu SAPCO bi di Souleymane Ndiaye dal na ci kaw candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba nee na moom du jàppale mukk koo xam ne Macky Sall amul ci moom confiance mbaa muy taxaw di jàppale koo xam ne ñëpp xam nañu ne buy jekku Macky Sall di ko war journal bi di sursoi nañu moom Souleymane Ndiaye donte tuddul aw tur waaye ñëpp xam nañ ñu fan la waxam ji jëm lu jëm ci mandat bu Macky bi war jeex le avril maître Doudou Ndoye mi ngi leeral ci journal Tribune ne Macky mën naa wéy di doon président de la République après avril ndax boo ay élection amul ci réew mi ba ñu fal ki ko war a wuutu Macky du dem di bàyyi réew mi sans président avocat bi sukkandiku ci article 36 alinéa bu constitution bi ngir wéral ay waxam wax na ne ñaari diggante Ndakaaru ak Sigicoor ginnaaw bi ñu ko dakkale woon ab diir suspendre ko bato bi dina tàmbaliwaat di dawaat journal bi nañu cib communiqué bu ñu jot ca la ñu jàngee ne président Macky Sall moo santaane ñu tegaat bato bi ci géej ginnaaw bi ñu ko suspendre juin 2023 moo waral ba waa Kosama taxaw nañu temm ci door rotation bi moo waral it kilifa yu port autonome bu Ndakaaru engagé ay équipe d'experts ngir ñu saytu boole ci ki taxaw ci lépp ba liaison Dakar Ziguinchor bi mën a tàmbaliwaat ci anam yi gën fii ki fan journal bi nee nañu dinañu wax kañ la bato bi war a tàmbaliwaat di daw diggante Ndakaaru ak